jóge si am am dal si ñàkk lii mooy situation devil bi nga xamante ni moom la faal Fall Bougazelli di dudd bi biñ ko jàppee ci wàllum phobie ci weerum novembre bi ñu génn moom mi fi géwal yi daan dar di ko taggal ay maamam militant mi daan fees dell biir këram ñenn ci ay natango politique am ñeewoon ko ndax recherche bi mu amoon tey ji Seydina Fall Bougazelli mënatul gis benn nit benn nit bu dul fameem wala sax ay mbokkam ñu tëj ko ca prison d Rebeuss ca chambre ñuy wax cellule des VIP depuis le 22 novembre 2019 koy topp ci association de malfaiteurs contrefaçon des signes monétaires blanchissement d'argent ak sax corruption loolu sax moo waral ba Seydina Fall Bougazelli mënatul jot li nga xamante ni moo di salaire am ginnaaw bi mu defee démission ci assemblée nationale mu nekk mbir boo xamante ni tax na ba famem di dund ay jafe-jafe yu metti jamono ji mu nekkoon ab soutien de famille doon dimbali ay nit yu bëri rawatina ki nga xamante ni te nga xam ni boobu ba léegi sax yaramam dafa xaw a jagadi ndax jàpp bi ñu jàpp doomam ji marié am lu toll ci ñaari soxna ñaari jabaram yooyu sax jamono ji dañoo am ay jafe-jafe ci wàllum koppar ba tax ñuy dund ay conditions yu metti mbir moomee sax moo waral ba aawam bii di wuyoo ci turu Khady Sané daal di tuxu ci ab immeuble boo xamante ni dañ koy defar te àggagul ci fàttali nag député bii di Seydina Fall Bougazelli dafa am feebar bi nga xamante ni moo di jabet loolu sax moo ko xaw sonal ca sukkandikoo ci ay jege ñaalam kii di Bougazelli sax du jóg ci infirmerie ba nga xamante ni moo nekk ca prison bu rëbës mu mel ni nag jabet boobee da koo sax commencé di gagné ba tax mu commencé di perte poids am mu nekk mbir boo xamante ni tiital na bu baax ñii di njabootam ginnaaw nag jafe-jafe yi yépp taxul benn yoon ba ki nga xamante ni moo di Seydina Fall Bougazelli bàyyindiku benn yoon ndax ñi ko gis ca prison ba nee nañ saa su nekk jàng alxuraan la fa nekkee ak def li nga xamante ni moo di sport maanaam di tàggat yaramam ginnaaw nag ay activités religieuses am ca prison bu rëbës Bougazelli aussi dina faral di organiser ay waxtaani diine maanaam di ñaax jeune détenu yi ñu gën di fonk seen diine waaye tamit di leen jàppale ci seenum dundin ca foofee ca prison bu rëbës Bougazelli nag bu amee lenn fu lu ko metti ca prison bu rëbës ba moo di séparé bi nga xamante ni séparé na ko ak doomam ju ndaw ji nga xamante ni judd na bu yàggul tem tuddee ko sëriñam sëriñ Saliou Mbacke te nga xam ni sax amul temps pour gis ko lu bëri la olof njaay di wax xaalis neex na waaye bu àndeek liberté moo gën